Alhamdulillah Allah Yesu Hamdan yakdumu bidawamida Alhamdulillah demoon nañu fi Saint-Louis réfectionné ay école mu àndoon ak ñun jàppale ñu donc euh, ñun tamit ci koor gi nii ñu ne woon dinañ def action gunge ko si waa koñam dëkkandoom yi mu nekkal donc ñu ànd si ak la fourchette Alkimia donc ak Flight Sen pour ñoo jàppale si dirige yi comme niñ ko daam tàmm di defee rek si action sociale yi jàppale nit ñi. ñu nag dirige du du du tey rek démb la woon quoi donc euh, dañuy perpétuer action yi ñuy def donc euh, lépp lu ñuy def rek dañ ko si woo donc moo tax lii aussi benn la si action yi ñu nar a def si koor gi donc ñu ñëwoon commencé fii ak yi mais am na yeneen affaire yu ñu nar a def. dem si shor ak yenen ki quoi ak yeneen partenaires ya yi. maa ngi sant yalla ci ngeum gi mo ma may ma gem ko weeru ko di ko wor muy weer mu wàcce alquran karim yalla eh ahmado yalla fi kulli yawm بشهر صومي ويرقى رمضان يا رمضان رمضان يا سهر القرآن ثم صلاة الله طول الدهر قال الذي أتى لهذا السهل من عند ربي العظيم الخدر يصعد واو بون دابور ماغ لين ريميرسي سي سنتي واي parce que tey ndogu bi li ko waraloon yëpp mooy tey solidarité mooy mooy lépp jàppalante te comme weeru koor lañ nekk weeru koor moom si nga war a gën a mën a yokku sa action bonne action yi nga doon def moo waral tey ñu def ko tey nag euh, loolu moo tax ñu ñëw ak ma ànd seeg waa Flight Sen ak groupe La Fourchette ñu accompagner ma ñu def ndogu bi yóbbu si jàkka ji yóbbu ñi nga xamante ni joxe ko ci tali bi ñi nga xam ne dañuy romb heure ndogu fekk leen ci yoon bi donc mu nekk affaire boo xamante ni affaire bu bu bu rafet la comme ni ñu ko daan defee rek yeneen bonne euh, action yi ñu def tey ñu ne weeru koor gi pourquoi pas ñu yokk li nga xamante ni ko def ci social parce que tey dëkk bi métti toll na foo xamante ni métti na métti boo xamante ni a war a jàppalante moo tax ñu def ko. waaw waa Flat Sen mën naa ne ñoom depuis seen début avant gars yi di leen xam sax laa leen xamoon ñu defoon benn collaboration. def benn baptême euh, baptême ci euh, jël avion bi def benn tour après ci la gars yi commencé Euh, di leen xam boobu ba tey nag ñu collaboré ba tey bon ñoom arrêté collaboration parce que ànd fi ak ñoom dem fi Saint-Louis ak Ziguinchor distribuer ay fourniture bu may def tamit sama don fourniture bi dañ ciy jàpp bu baax tey aussi moo tax ñu ñëwaat accompagner donc collaboration la boo xamante ni na te aussi depuis bi ñu ko commencé def ba léegi avancement rek lañ ci gis waaw boo tax boo gisee ñuy def action yi sax di ko photo wone pour gars yi aussi continuer ñoom it di ko def def action yooyu noonu ba nga xamante ni dëkk bi tey ñu bari duñu am problème pour lu ñu lekk wala lu ñu naan ndax euh, ñu ngi nekk comme ni ko gars yi wax les temps sont durs moo tax ñuy inciter gars yi encore une fois rek képp ku ko mën a def rek am ay moyens wala nga ut ñu la accompagner nga def ko tamit sa koox dina ci baax quoi. gannaaw onze billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu waa ñaari waaju di sant Serigne Touba bu wér a wér a wér di ziar ñëpp nag di waa koñ bi waaw yi tey lii mu def nii lu nice la ndax moom ba mu dëkkee su koñ ba léegi ay ambition rek lu amal njëriñ la amal waa koñ bi quoi parce que bu ko neexoon mu yóbbu ko feneen wala mu def ko feneen mais nañu wax mu ne man sama koñ laa am lépp lu may def sama koñ laa koy tàmbalee mu ñëw waxtaan seeg ñun si kàddu yu rafet ñu ànd seeg moom waaw boobu ba léegi nag mi mu nekk si affaire bi même pas trois jours ba mu ma ko waxee non peut être dama bëggoon waa koñ mi ngeen ñëw jàpp ci seggal may kafe damay def ay ndongo ñu ànd ceeg moom te boobu ba léegi dara ñaawul macha allah affaire réussir na am na doole. parce que yàlla moo ne la in la in la in sakartum la asid boo santee rek ñu dolli la te saawaay moom lii mu def nii tànk kanam rek la ci ama ah, incha allahu rabbi di ko ñaanal nag lépp lu mu bëgg moo xam yàlla na ko suñu borom defal ci barke Serigne Touba bu ñu yaakaar lépp loo xam ne rek.

ñu ngi koy ñaanal yàlla def ko lépp lu mu bëgg ci carrière moo xam yàlla na ko suñu borom defar waaw di wax waa koñ bi nag ñu ngi masawu ñëpp di baalu àq ñëpp waaw loolu laa amoon ci yéen nag di leen masawu di leen baalu àq. tey jii nag ñu fii nga xam ne moom mooy Aynou Mane euh, ñu fekk si fii donc suñu frère bokk ak moom benn koñ di bàcc Drissi ñu am contentement donc bu baax a baax a baax ci acte bi mu def tey muy ndogu donc de solidarité bi. parce que tey jii tey ñëpp wuyu si nañ ko ça veut dire benn jeune boo xam ne la wax dëgg yàlla donc xam nga lépp lu mu am tey jii koñam la koy indi ñu koy remercier bu baax a baax muy kit scolaire du don alimentaire donc di lepp ba ci tay joxe ndog yi c'est pas la première fois mu koy def de man mom wax wax dëgg yalla nee ko référence que ci mun tay ji lepp lu mu fi organiser rek donc man lay njëkk a nama na mënu ko dama bëgg donc ñu organiser li lan nga ci xalaat lan nga ci xalaat donc li tubaab nan nak le respect n'est pas une faiblesse mais la preuve d'une bonne éducation te tay ji gis naa donc respecté na ma am fu mu ma teg man mom suwa ba ngoon donc lepp lu mu nekk rek donc ma ngi ci vraiment référence la ñu ñaanal yalla donc xam nga lu mu mun ren donc yalla nako ko mun déwén di ñaanal yalla bu baaxa baax wax dëgg yalla nit ku baax la ku am yar la ku tee la aussi tamit xam nga di ñaan yàlla daal avancement rek. waa sama dernier moom mooy bon kontaan rek di ñaan yàlla aussi bon mu ñuy may lu ñu ko gën a mën a di defee tant que ñu ngi koy mën incha allah dañ koy gën a def di gën a yokk li ñu doon def incha allah jërëjëf.